kat yi de da mel ni réeroo mi ngi bëgg am ci seen biir ginnaw seen diiru grève bu yagg bi yépp fi mu ne nii waxatuñu le même langage de mba du nguur gi moy diviser pour mieux régner ay lañu tok rek handicapé mi di réclamer ay droit yo xamanteni nguur gi mo leen ko amel waye fi mu ne nag déggootuñu ci ay kàddu de seen biir ñom syndicalistes yi ndax bu waa 5 jappé ni jot nañu ci classe ya ak ñom ni ñett faaw rek ñu wat ko ñun lu ñuy xeex du pour ñu jox ñu lu kenn amul du pour yokk dañu ne jubbanti yamale indemnité d'enseignement luñ ci laajoon nguur gi am na lu ci des indemnité de logement dañu mës a wax nañ ko moduler maanaam en fonction des hiérarchies nguur gi nag defal nañu ay proposition ñu taataan yépp te lépp nag comme ñun ay ndaw lañu te ñu ñu jàngalekat yu ne ci classe yi daara yi diggi doom yi suñuy nawle lañu. ñu ngi leen di déglu nag ñoom ñu jox ñu seen xalaat ci mbir mi. këri poisson bi yépp nag li ko waral du lenn lu dul offre yi tukkee ci seen négociation yi ak nguur gi. ñenn ñi jàpp ni sax satisfaire na leen ba mën nañoo teggi seen tànk ci grève bi. du ñu topp mu mbay lu ñuy def dañ koy def si suñu teeyu bakkan. ñun ñi nga xam ne ñooy juróomi syndicat yi si juróom ñaar yi. ñu jàpp ne école bi du suñu école ñun kese.

mais imaginez quelqu'un qui a 25 ans qui a 500 000, qui boucher na am année blanche na am année invalide na am am ba nga ne Une fois que mentalité arrivée. Mhm. dañu nekk ci <laughs> non dañu nekk ci vous les rek payer ay qu'ils n'ont malheureusement pas cassé. programme scolaire moom lu leer mooy terminer su solution amul élève terminal neuf mois nga am neuf trois mois wala quatre mois ba pare quatre mois yooyu neuf mois yi mun naa programme bi ñu la jox dañ la ko doon sol dañ la sol léegi professeur yaa ngi grève da nga ñëw 9h ñu nga génn dem ñibbi ay xoolal ñoo xam ne fu ñu ñu bu leen ñu ñëw ba am ñoo xam dañuy dox ñooñu ñu ngi seen santé ngir yàlla yërëm leen ñu ñu lu ñu wóor ñu ñu duñu kañ suñ naka lañ mën a toggee fa ak tête vide bi li situation nag moo tax ñuy sàkku report examen yi muy bac di BFEM ngir ñu mën a nekk à jour comme seeni morom ñenn ci askan bi sax jàpp ni lu jig njaaga nguur gi mooy njaag dañuy faral di wax ne boo ubbee école mel na ni tëj nga kaso bu fekkee école u Sénégal ñetti weer a ngi dafa tëj dafa mel ni ñetti weer a ngi dañoo ubbi ay kaso boo ubbee école mu ngi mel ni yaa ngi xeex ignorance maanaam ñàkkum xam ça veut dire que ñetti weer ngi ignorance mu ngi yok Sénégal ñak xam ak ñak jang mu ngi yok Sénégal donc motax ñuy wax président Macky Sall il a été élève mës na nek élève mës na nek étudiant légui nek na président de la République té école publique motax mu mel ni mu mel école publique motax mu nek président na delloo naar bi li nga xamne mom moy xorom si. waye ak lu meuna am rek jot na ñom ñoom jàngalekat yi ñu bayyi xel aveniru ndaw ñi nga xamanteni mi ngi ci seen loxo même su fekke ni ci biir seen négociation yi mënu mënuñoo am 100 ci li ñuy sàkku li ñu jot tek seen loxo nga xamni ni mën nañoo jàpp ni couvrir na 90 ci seen i revendication nañu ci jàppandi te jéem a delluwaat ci classe ya le temps que ñuy wat sax yeneen i stratégie de lutte newuñu ni nekk ñu ci yoon déedéet li ñu bëgg kay moy ñu baña a xalaat seen bop rek ba fàtte ñi ñu leen dénk deug la sax nguur gi mom ci xolam la nekk nekk ngir fexe leen jaxase ak askan bi li ñu naan diviser pour mieux régner et c'est de bonne guerre nak en tout cas ñu ngi am yaakar ci seen waxtaan yu ñu nara amalat encore mu am dénouement bu heureux ndax kat il y va de l'avenir des potaches li leen leen indiloon ci xibaaru bés bi fi ci Totem Actu wooy leen rek di ñu suivre ci suñu ay chaîne YouTube Instagram Facebook ak Twitter ci Totem Actu waaye tam ci suñu site internet www.totemactu.com